ma QG rek Anita commentaire. waaw xam nga xam nga xam nga Sénégal Sénégal la ñu tàmm heureusement nag maa ngi sant yàlla parce que man su ma demee ba ñu may wax lu yu mel noonu. Mhm. mënoon nañu ma fi génneel ay milliards mënoon nañu fi génneel ay affaire de mœurs. mais qu'est-ce que justement qu'est-ce que ça vous fait. c'est une question parenthèse non ça me fait rire en réalité. xam nga ah. tax parce que dama gis. Mhm. niveau d'intérêt niveau d'interaction wu. Euh, compte boobu. Anita xew na de. non non moom laa wax <laughs> dama dama gis niveau d'interaction bi. mooy buzz actuellement waaw waaw nu muy waaw dama gis niveau d'interaction bi. Uh-huh. ni muy waxee ni muy tontee uh-huh. te man Sénégal ñu may sikkee ne Pape Malick da koy wasoon doo ko jot uh-huh. Pape Malick da koy message wasoon doo ko jot uh-huh. Pape Malick da koy whatsapp doo ko jot ma gis kooku niveau d' bi ma ne man de su ma sañoon nag ma am jot boobu dëgg dëgg yàlla pour mun di tontu au moins ñi nga xamné dañ may laaj. Eh. ci li nga xamné moy jëmeul Sénégal kanam. mais mais lu tax ñu lay jiñ ya nek waaw xamna nak nag da leen sonal. parce que y' a beaucoup de comptes en fait il y' a des comptes yu bari yo xamanteni tay euh gouvernement bi lañ fi taxawal ku wax ñu tontu comme un xeex bi aussi euh, xeexu internet la. mais lu tax boobu spécialement rek ñu né yow yaa nekk ci. ginnaaw bon man ni ma ko expliquer ñaari affaire la euh bu njëkk bi moy bon dañu gis nit ko xamné mu ngi fi di fonctionner euh peut-être amuñu luñ ko mëna a léeg-léeg sax ma dégg ñeneen ñu ne Pape Malick amul xam-xam jàngul mais man si ma jàngee xam nañ ko man aw diplôme France man mosuma génn jàng yaa ngi dégg jàng nañ université laa jàngee ñi ma bokkal classe xam nañ ma mënoo ma wax loolu soo ko wax am nañu koy wax ah hmm. yaa ngi dégg voilà mais mënul prospérer wax boobu parce que soo ko waxee sama promotionnel la ñuy génn na la mais Pape Malick 2004 la am bac 2000 la am maîtrise mosul reprendre classe université soo ma nee Pape Malick amul xam-xam ñu ne la ne collègue am yi nekkoon ministre des finances ñu ngi foofu hmm. avant muy nommé product liggéey na presque 7 ans wala 8 ans ministère des finances bon Pape Malik, peut-être etc. cetera amul base wala dara ñu ne la Pape Malik, barki dem a gagné élection yi bu muy am 28 ans la nekk président conseil départemental nga nekk non, nit ñi topp ñu ko mu pourtant élection yi passé duraat na gars il y ba ci kaw dóor ci suuf bon ok Pape malik, amul dara et cetera donc il faut que nous créer man noonu laa ko jàppee hein, il faut que ñuy créer affaire maintenant beneen bi moi, bon moi aussi gars moi, may ma leen lu bëri ci internet bi ah voilà man damay interaction soo ma ma tontu quoi peut-être loolu moo ñu ne bon peut-être kii rek ci affaire yi moom am fitu peut être nek ci ginaaw kenn mais xamoo du tout non non man nekuma ci lolu moi je suis un homme respectable parce que ñom tamit lu ñu bëgg moy jëma présenter nit comme un insulteur présenter nit comme quelqu'un bo xamné da fay wax lo amul su ko defee sénégalais yi mën la jëppi parce que Sénégal naturellement bëgguñu ko arrogant bëgguñu ko réew bëgguñu ko mëna ñak kersa yaa ngi dégg bon waxuma nag Anita loolu lay def parce que peut-être du da day dafa dafa leen topp ci seen i ci seen i affaire <laughs> mais c'est pourquoi peut-être ñoom ils disent bon dañ ko présenter comme ça su ko defee les sénégalais dañ koy jéppi wala sénégalais dafa xamadi wala dafa réew su ko defee su waxatee wax bi gën ko dégg mais loolu nag c'est de bonne guerre ah, man ñi ma xam xam nañ ma je suis un homme très courageux parce que man internet je m'appelle Pape Malick Ndour ñaari compte la am Pape Malick Ndour lambda bi ak Pape Malick Ndour l'officiel te je pense ñi may suivre gis nañ ne man je ne porte pas de gants ñi may suivre xam nañ ne man mes arguments je les dama koy défendre avec force parce que c'est des arguments que j'ai yoo xam ne samay idée laa koy puiser mais man insulte bokkul ci suma jargon musuma saaga musuma wax dara kuy xas di saaga au moins da nga mës a rëccale wax dara ba nit ñi mën ko am vocal wala dara mais man meluma noonu. mais barki démb dañoo dañoo gis euh, nga ci mbiru Ousmane Sonko yi. Mhm. Euh, am ko ànd